waaw. <laughs> waa loolu dafa neex parce que toog rek ñu woo la beneen pays ne la nga ñëw dañ lay jox euh, euh, prix africain du leadership féminin ah dañuy xam ne rek kon suñu liggéey nulul suñu liggéey mi ngi mi ngi jéggi frontières yi te même sax dinañ demaat beneen pays africain ñu ngi ñu fay woo pour beneen euh, award donc di sant yàlla donc liggéey bi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi romb frontières yi ñu ngi koy sante yàlla bu baax te ci mois de mars bi c'est un honneur waaw c'est un honneur takk mhm. mhm. mhm. non amul li nga mer jeex na wala lu nga merul jeexul man injustice laa doon xeex sénégalais jàppale ma ci te nee naa nag wax moom danga koy wax fi muy safee parce que su toog toogoon ba tey di ko jooy wala di ko wax dinañ ne kii dafa bëri soit ba dafa ñàkk dafa bari problème mais dama ko wax xam nga à la euh, la à la minute qu'il fallait xam nga ci tàng-tàng bi laa wax et ñu bëri xam nañ ne la majeure part la majeure xamoon nañ li ma doon wax xamoon nañ li ma doon wax te foog naa artistes yëpp laa xeexal quoi la preuve mais mais kii après après ñoo wax wàllu violence am na ñoo xam ne tamit ñoo ngi dund violence te maanaam nekkuñ si kaso bi. Mm-hmm. bu ñu gisee cas bi di Adji Sarr bu dee pour mu nalaw sax c'est tout un problème mm-hmm. boo déggee kàddu yooyu en tant jigéen sa morom jigéen di wax yooyu franchement nag un dossier bi nga xam ne maîtriser wu ma ko bëgguma ci wax ah c'est c'est c'est un dossier que je maîtrise pas du tout franchement waaw waaw ah, waaw loolu moom dañ koy déplorer loolu moom dañ koy déplorer te foog naa sax mooy objet principal journée tay bi waa góor ñi ngeen gën ñu yërëm gën a jàppale jigéen ñi parce que ñun ñooy seen yaay ñooy seen i soxna